ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى yàlla mu ne képp koo xam ne juyoo naak yonent bi foofu sax yàlla waxu boppam yonent bi ci boppam rek la wax wa man yushaqi rasula xam nga booyu ci boppam de daf ni ku juyook yonent yàlla muhammad ba no dégl min baadi maa tabayyana lahu lhuda ba mu ko leeree nañ ne yonent bii moo nekk ci dëgg te moo nekk ci dëgg yàlla nee na ko innaka ala innaka ala siraati mustaqim képp ku juyoog yonent yàlla muhammad ba mu la leeree péng na yonent yàlla muhammad ci dëgg lay dox waaye nag wa yattabi gayra sabilil muminin nga topp weneen yoon wooy yoonu saay-saay si yoonu kàccoor yi yoonu ñu topp seen bànneexu bakkan yoonu ñu ñàkk yar yàlla mu ni nu wallihi maa tawalla dañu koy méngaleeg la mu méngoo moo xam waaye yàlla yemu ca de wa nuslihi jahannama danañu ko tàbbal jahannama bu yowmal qiyaamee wa saat masira te kooku ak mujjëm ñaaw na bon na metti na mooy ki juyeeg muhammad boole mu ci yàlla de ki juyeeg muhammad beneen ca suratu nuur yàlla mu ni yàlla mu ni nu mu ko waxee sax euh, laa tajaalu dimbale leen ma ci laaj su ma naree juum yàlla def ni laa tajaalu duaa ar rasuli baynakum ka duaai baadikum baada ah qad yaalamu allahu alladina yatasallaluuna minkum liwaada lu mu ca topp falyaxdari alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim xam nga laay ji mu wax yàlla mu ne gis ngeen ni ngeen di woowante ni eh Ibrahima eh Omar Samba Mbay maanaam ñii ñuy woowante suñu biir yàlla mu ne bu leen ko jëflanteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam maanaam bu leen jàkkaarloog yonent bi alayhi salaat wasalaam naan ko eh Muhammad eh doomi Abdoulaye ji déedéet loolu du yar kenn du jàkkaarloog baayam sa baay tudd Mbay nga ko eh Mbay déedéet. nee na bu leen def na yonent bi kon bu ngeen koy woo ne leen ko yaa rasulallah wala yaa nabiyallah yow mi yàlla yónni yow yonentab yàlla bi nee na loolu mooy yar ak teggin ci seen diggante ak muhammad ba noppi yàlla mu ni xam naa naafiq yi nga xam ni dañu toog ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu di leen waar di leen jàngal ñuy yoxoosu di daw yoxoosu di génn te amuñu ci ndigalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam salaam mu ne xam naa leen mu teg ca ne falyaxdari alladina yuxaalifuuna an amrihi ñi nga xam ne dañuy juyoog yonent bi ci ay ndigalam nañu def war nañu wattandiku bu baax nañu def attention bu baax ci lan an tusibahum fitnatun fitna ju mette ju tar dal ci seen kaw ci sababu juyoog yonent bi alayhi salaatu wassalaam aw yusibahum adabun alim wala mbugal mu metti tar dal leen ëllëg yawm alqiyaama fitna ji nag mooy ban fitna mooy fitnay dema dema dem ba sa xol tëju doo bëgg déggati dëgg doo bëgg déggati dara lu baax buñ lay wax waxu yonent bi alayhi salaatu salaam sax sa xol day bon danga naan ñii dañuy font seen diine ju bees jii li ñuy wax kenn xamu ko nangam ak sàngam ak sàngam fekk déedéet yonent bi alayhi salaatu wasalaam lépp moo ko jàngale waaw mënu mënu mënu leen fay jëlee li fi mag ñi bàyyi kenn gën te mag yonente bi alayhi salaatu wasalaam ah yéen yéen jàngalem yonente bi ngay jàngale jàngalem saxaaba yi ngay jàngale kene mu ni la mënoo fay jële jàngale mag ñi mag ñan kenn magul yonente bi alayhi salaatu mag ñi kay ñu ñu tuddee mag ñi tey dañoo ñëwoon dëgërëtal njàngalem yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañoo ñëwoon kay di dëgëral si njàngalem yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye léegi nag ñun ndaw ñi dema dema dem ba bëgg topp suñu bànneexu bakkan naan njàngaleem mag ñi di tooñ mag ñi rek da mag ñi njàngaleem yonent bi lañ doon jàngale de yonent bi alayhi salaatu salaam mas naa wax ci xadis mu ni na ngeen di bàyyi seeni sikkim bu leen ko wat da di wat seeni mustaas ana ñi ñu tuddee mag ñi tey ana man mag nga gis mu wat sikkimam bu dee photo ngeen ko gis wala dessin man mag moo fi mas a wat sikkimam ñu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam kat moo ne góor góor masalan góor boo xam ne dangay sol tubay ju paase sa suufu dojoon nee na la ko paase suufu dojoon yépp sa war a la jëm ñu ne ana mag ñi man mag ci photo wala ci dessin nga gis mu sol yére bu buubu amul kon buñ ne njàngale mag ñi lañ fi bëgg a jëlee déedéet neel sama toppale yi ngeen fi bëgg a jëlee dégg nga wax bi yàlla mu ne nañu wattandiku di juuyoog yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax da ngeen xam ne inna allaha ni ki yàlla shadidul iqaab ku tar mbugal la ci képp koo xam ne juuyoo nag yàlla ak yonentam alayhi salaatu loolu mooy loolu mooy li nga xam ne moom mooy dëgg dégg ko